fii état moo ñu fi tegoon provisoirement lañ fi tegoon nag waaye ñu ñaan état ne ko bu mu fàtte ay doomi réewam ndax ñun kat jeunes yi na nañu chaque jour yaa ngi dégg ñuy lap ci gaal yi nangam nangam barki démb rek lañ ci mujjee wane bu ñu waxee ñaan wala jeunes dañu war a toog fii jeunes dañu jeunes yi ba ñu toogee jàng seen métier ba mokkal état taxaw wutalu leen fu ñu liggéeyee bu ñu gisee gaal gu ñu dugg dañ ciy dugg ndax doo gis sa yaay muy xiif nga toog di ko xool qu'on se dise la moo war a conserver ay jeunes am téye leen ci biir dëkkam ñiy jaay mu dimbali leen ñu jaay ñi am métier mu dimbaleen leen seen métier ñi nga xamante ñooy jàng bu ñu jàngee ba pare mu ta leen fu ñu dugg li li mu war a def yëpp xam na ko waaye nag jëlal ay milliards dajale ko def ci lu la neex bàyyi say jeunes ñuy taxawaalu bu ñu gisee ay gaal dañ ciy dugg que ça soit ñi nga xamante ne am nañ métier surtout euh, artisan automobile yi depuis indépendance bu jour bi ñu nekk amul lenn loo xamante ne benn centime centimètre boo xamante ne tey état dagg na ko jox leen ko ñoom pour ñu nekk ci et pourtant étranger day jóge ci réew ma day jóge ci réewam ñëw fii ñu daggal ko ay hectares ci suñu suufu maam jox leen ko ñoom ñuy bay di yóbbu seen réew di jël seen xaaj di ko dugal ci biir ci biir seen biir dëkk ñun sénégalais léegi ñun ñu def lan li ñu moom muy suuf si nañ ko bokk teg ko ci yoon ñi war a liggéey ñu jox leen ñu liggéey suñu bëggee conserver jeunes yi su dul loolu nag gaal yi moom du fi jeex bakkan nag fu ko yàlla tudd fa lay tëdd xam nañ ko bu doon suñu sago nag ñu des fii